Euh, le chargé de communication euh, du mouvement pour l'émergence du département de Kongol, MEDK taxawu euh, ñoo ngi nuyu mbokki département Koungheul yëpp di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu góor jigéen mag ak ndaw mais di nuyu également responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëpp mais di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu responsable la coordinateur départemental du mouvement MEDK monsieur Babou Khady di nuyu le comité exécutif bi nga xam ne ñoom nga gis Nous ñu tous les coordinateurs communaux des neuf collectivités territoriales qui composent le département de Congo. mais nous avons responsable yi nga xam ñoo mouvement bi également les gox yi département Nous avons tous les li tax ñu neuf collectivités territoriales dañ def dañuy def li nga bu xew-xewu diine amee bala bu leneen amee ci département bi tey nag ci ndigalu le coordinateur départemental ak tous les membres du comité exécutif du mouvement dañoo daje woon ay fanti ginnaaw ñu waxtaanoon ci nañ leen di waajalee tabaski bi comme du ren rek leen ko door a def ay at a ngi nii ñu ngi koy def daaw mouvement bi def ci ay jéego yu am solo mais ñu évaluer fi ñu jógee woon daaw lan leen def lan moo manqué woon mais coordinateur joxewaat ci ndigal mooy nañ ko yokk parce que tamit loolu dafa nekk ci principe yi taxoon ñu fondé le mouvement moo tax ñu delloo mbattuma ca ndaa bu ñu naanee woon parce que c'est un mouvement politique un mouvement de soutien politique mais un mouvement aussi social boo xam ne nii c'est un politique de développement te bu ñu tollee ci jamono boo xam ne nii dañuy ñëw si li nga xam ne ni moom mooy feetu tabaski bu feetu jullit yi dañuy ñaanal askan bi yëpp yàlla yóbbuñu ci ñu fekkee ko ci jàmm ñu fete ko ci jàmm di ñaan yàlla également def jàmm ci réew mi di ñaan ku nekk nga feete mbir mi ak yàgg sa njaboot ci jàmm ak salaam moo tax tey ñu dajee fii pour jéem a joxe li nga xam ne ni moom mooy ay kit alimentaire jox ko askan bi nga xam ne ni ñoom ñoo ko gën a yelloo loolu moo tax ñu dajee fii tey sooy jël li nga xam ne ni moom mooy jëm ci soble bi muy tolloog deux cent sacs ñaari téeméeri sako booy jël également li nga xam ne ni moom mooy pompiteer bi mu ngi tolloo également ak ñaari téeméeri saako deux cent sacs li nekk fii yëpp boo koy xool mu ngi nekk ñeenti ñeenti téeméeri saako muy quatre cent sacs ci soble ak ci pompiteer waaw mais xam nga ku wax ndimbal wax ku ko yelloo Euh, ci orientation yi nga xam ne ni yooyu la mouvement bi taxawee ak kilifa gi la le coordinateur mooy neen ko jox ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko yelloo mais mbir boo gis dafa am fu muy jaar parce que ab dajale bu guddee te daanuwul ba jiitu moo jub loolu moo tax dañ naan comme les coordonnateurs communaux ñoom ñoo nekk au niveau des communes respectives tey su ñuy joxe teraanga ci seen loxo lay jaar ñoom également am na population boo xam ne ñoo ngi ci seen ginnaaw am responsable yu nekk seen ginnaaw dineen waxtaan ñu xool askan bi ñan ñoo ko gën a yelloo ñu jox leen ñu jox leen nu mu demee ñu jox leen li nga xam ne mooy ndimbal li mais coordinateur moom li nga xam ne nii loolu mujjee wax ak membre yëpp mooy euh, dimbal bi neen ko jox ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko yelloo ñi seen loxo jotul seen ginnaaw waaw bi xam nga ñun tey euh, neuf collectivités leen am mouvement parce que collectivité bo dem représentation coordination euh, neuf collectivités yoy non len di sédélé li nga mais ci lolu xam nga bi rek ci parce que coordinateur dafa jël ci alalam mu ay jël aussi ay enveloppe jox ko ay kilifa diiné té néna lool su bu sañon du feeñ ci ay image parce que tamit euh amna lo xamné sokoy défal kilifa bëggul aussi ñukoy wané à travers les réseaux sociaux motax tax mu ne loolu nañ ko def ci su malgré xamné montant bi parce que boy jël li nga xamné ni mom moy soble bi ak computer bi soo koy da fay ñëw aux environs de 7 millions nga jël li nga xamné ni mom moy xar yu mu jënd ak enveloppe bi bo ñëwee presque day 3 millions et quelques mu dégager une enveloppe de 10 millions pour jàppalee le département de Koungheul jàppalee ko ñi nga xam ni pour ñu mën à dem ci seen njaboot amal fête bi si jàmm ak est appel lancé waat rek dañuy son excellence le président de la république Macky que nous gën a gestu gën bu le responsable M. Babou Khadija ci action yu am solo pour gonger la communauté congolaise mais ci loolu également ñu nek fi ak suñuy nawlé ño xamné ni ay responsable politique leen ay leader leen ñu leen di nuyu de passage di leen sante di leen gëreum ci action yi ñuy def mais du ñoom rek leen wara lancer message bi dañuy lancer message bi képp ko xamné ni suñu borom amna wërseuk bu mu la jagleel nga gestu ginnaaw ñi nga xamné ni ñoom la seen loxo jotu seen ginnaaw nga jappalé leen ci parce que li ku ko def. yaakaar naa ne di nga ci am tiyaaba te suñ borom dina ful li nga xam ne loolu nga am waaw loolu dañuy remercier bu baax ki nga xam ne ni moom mooy le coordonnateur monsieur Babou Khadidien ci effort yi nga xam ne nii du noppi di ko def xaj na mouvement bi mënalul boppam lu bari bu amee bariwul mais lu ci bëri moom mooy jël ci moyen boppam ne lii neen ko def mu nekk ay action yoo xam ne ni ñun dañ koy gërëm action yo xamné ñun dañ koy sante mais également di wax mom nee na lépp loo xam ni yalla sédd na ci teraanga té mu nekkoon lo xamné ni mom bi taxawal mouvement bi sakku wutone ñu jiital ko mais biñu ñëwé dafa am ay ay ay ay ligne directive yo xamné ni mom leen teg mu nekk ay feuille de route nekk ay plan d'action lool buñu démé ba nga xamné ne ni dafay wàjjage ci dañuy tok waxtaan ñu né ah lan leen wara def mom aussi mu joxé ci ay indice né li ak li leen wara def té buñ koy def li nga xam ne ni moom mooy jeexital bi na ci askan bi gis seen bopp donc kooku suy def loolu dañ koy sant gërëm ko di ko ñaanal également lim mën yàlla di gën ko ful yàlla gën ko taxawal yàlla gën ko dëgëral defal ko ko également ak njabootam mais di remercier bu baax également tey ki nga xam ne nii moom mooy moom mooy euh, kilifaam di l'honorable député El Hadj Mohamed Dieng parce que kubéerkat lu muy saf loolu la butéel ba def parce que tamit loolu tey am na suy man lenn li am na fu mu jógee am na fu mu taxaw donc loolu nag dañuy ñaan kilifa diine yi ak mboolem département bi ñu gën a ñaanal seen doom gën ko bàyyi xel mais di sant bu baax responsable yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mouvement bi ku nekk ci titre ak fonction bi nga xam ne moom nga occupé parce que tey malgré na mais ñoom ñëpp bàyyi neen li xam ne nii loolu leen loolu leen loolu mooy seen yitte pour ñëw ci bés bu am solo bi parce que tamit ci réunion d'évaluation bi aussi ni la demee woon. asalaamaaleykum waa département bu Koungheul euh, ñu ngi nuyu askanu département bu Koungheul yëpp di neyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Euh, di wax ne comme niñ ko defee woon daaw euh, moom lañ ko fas yéene defee ren ànd ko ak suñu leader le coordonnateur départemental du mouvement MEDK monsieur Babou Khady Dieng euh, ñi dëgmal événement bu mag muy tabaski ñi xam ne tey ñun suñu mouvement bi nga xam ne nii moom mooy mouvement MEDK comme ni ko ñëpp xamee mouvement politique la di soutenir le président de la république waaye mouvement boo xam ne lii la d'envergure sociale tey nag ñi poser un acte social boo xam ne nii euh, acte bu rëy la ndaxte boo xoolee tey kiit alimentaire yi nga xam ne nii tey indi nañ ko fi fas yéene joxe ko si ndigalu kordinateur départemental daaw lam defoon dafa wax ne ren fas naa yéene yokk ko waaye yemul si yokk bi daf ko triplé li waral lool mooy dafa fekk ne dañu nekk ci département boo xam ne nii gox boo xam ne nii doole yemul tey bëri na ñoo xam ne nii actuellement trois jours deux jours avant la tabaski dara nekkut seen poos walla mënuñu seen bopp moo tax mu ne dinaa la ma defoon daaw dinaa ko yokk ngir askan bi yépp mën a feete feet bi ci jàmm ak ci salaam ak ci mbégte kon ci kaw loolu ñi ñaanal coordinateur départemental bu baax li nga xam ne nii tey mu ngi koy def euh, jëmale ko ci askanu département bi te muy njëriñ kese yal na ko yàlla fay li mu man ren bu déwénee yal na man lu ko ëpp waaye di wax aussi que ne tey mouvement MEDK dafa nekk mouvement boo xam ne nii benn mouvement ëpp ko doole ci département bi tey boo xoolee neuf collectivité territoriales yi yëpp teew nañ fi ak seeni coordonnateur góor jigéen mag ak ndaw ñu ànd ak moom ci liggéey boobu noonu tey ni mu wàccee Euh, jëm ci askan wi pour jàppale leen dimbale leen yaakaar naa ne loolu la président de la république bëgg ndaxte président mënul dem fépp mënul gis ñëpp mais tey ñi nga xam ne ñoom la ànd ak si liggéey bi di ay leader nekk ay euh, leader départementaux wala wala régionaux ñoom tey ñoo ko mën a aw si yenn yi te monsieur Babou Khady Dieng loolu la taxawee kon daal pour bañ a guddal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant képp koo xam ne nii teew na fi euh, muy membre Eh, MODK di gur ak eh, jigen di ñaan yalla aussi niñ fi téwé ren ñi yalla nañ ko téwé bu and ak yokuté ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaan yalla fête bi ñi dëgmal yalla nañ ci yegg ci jamm feete ko ci jamm ñep am am mbékté ak comme ni ko élage baab bi té waxé sank aussi nim mu ni ci si kit alimentaire yi muy walu lu nga xamni ni mom lañu def ci la ko défalé ay nit ci secret jëm ci walu xar jëm ci walu yéré jëm ci walu enveloppe donc daal ñu ngi koy ñaanal di am mbégte bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waa département bu Koungheul man la Demba Ndiéguène nekk euh, trésorier mouvement MDK donc di féliciter ñi fi ñëw yëpp waaye donc dañuy jiital nayoo bi ci imam yi sëriñu daara yi képp koo xam ne yaa ngi ci département Koungheul rek mouvement bi mu ngi lay tàllal loxo ci turu Monsieur Babou Khady Dieng di sàkku ci yow ay ñaan di sakk ci yow taxawaay parce que ku ne xam na ne am réew kilifa daf caa am solo te lii su koy def daf ko roy ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci département bu Koungheul xëyul rek xam lii xëyul rek am lii parce que am na ay conseil am na ñu ko accompagner am na it ñu muy roy ci département bi parce que département bi saaru nit bu baax bu nekk mu ngi fi kon wax dëgg yàlla su defee lii da ko war a def te it ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi ànd ak monsieur Babou Khady Dieng euh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla parce que it lutax mané ñi ngi sante yalla dañ and ak mom andu nawle mu fonkal ñi bopam bëggal ñi bopam yëg ñi faalé ñi ak njabootam tamit noonu la mel noonu lañ mel ci ñun kon wax dëgg yalla suñu ñëwé ba fi lolu dañ ko wax waye ci kàddum moy ke dañuy talal loxo département bu Koungheul yépp xamna département bu Koungheul ñun ñokay koy defar yu bax ñun ñokay taxawal ci ay engagement ak détermination ak it bëgg suñu gox saa diir moom ci loolu la ñuy woo moo tax kenn ci moom mun nu ko remplacer si jukkoom yëpp parce que ku ne xam ne ne baabu ci ful lañ ko xam ci fayda lañ ko xam si sutura lañ ko xam waaye ci jëriñ askan wi lañ ko xam parce que xam lu tax ma wax loolu mooy que ñun ñi ñëpp ay xale lañ kenn si ñun loxoom jotul gannaawam waaye image chaque chaque chaque événement bu ngeen di film ñun xam ngeen ne kenn manqué wul si ñun kenn jogewul ci groupe bi parce que lu tax moom dafa mun boot parce que lu tax moom lépp lu mu am papam yaayam njabootam def dañ ko bàyyi alalam mu ñëw bokk ko ak ñun kon wax dëgg yàlla ñu nit fépp fu mu ñëwoo dañ koy wuyu ji lii mu def man mi nga xamne tay financement bi ci sama loxo la jaar jeleewul ko ci bay jeleewul ko ci parti jeleewul ko ci benn ministre jeleewul ko ci benn DC e. lu bopam la jël 10 millions 500.000, xamul 500000 10 millions 500.000. mu nek fukki ci ay millions ak temiri junne mom xamul saako soble lu muy jaar xamul saako pompiteer lu muy jaar xamul enveloppe yi nga xamne tay mom lañu joxe ñaata lañu ci def su dul dañu pare wax ko kon doyloo nañu saa à dire nit ki nag booy ànd ak nit ki daf lay yëg yëg-yëg boobu mu am ci ñun qualité boobu mu am ci ñun moo tax du ñu masu deltu gannaaw te wax dëgg yàlla dafa am loo xam ne département Koungheul daf ñu ko sas parce que toujours dañuy yéen ñi nga xam ne tey yéen a ngi partout euh, dans le monde yéen a nga fa yéen ñi nga xam ne yéen yor wàllu média Koungheul doomu Koungheul nekk jàmbaar ci lépp ci côté bu nekk kon moom su amee taxawaay bii nekk jàmbaar ñu nit dañuy ñaax ñun ñëpp ñu doon ay jàmbaar yaakaar naa doomu Koungheul loolu la soxla yor doom mu mel ni Babou Khady Dieng bu ci amoon million doyut waaye it su ma paree foofu it wax dëgg yàlla damay sant ñi nga xam ne ñooy coordonnateur yi nga xam ne ñu ngi jógee ci commune yëpp ñëw wax dëgg yàlla teew seesi bés bu toll nii parce que ku ne xam na ne njaboot dafa metti bés bu toll ni tabaski ku ne xam na ne bésu jaamukaay yàlla la waaye bés boo xam ne dafa am lu mu làmboo foofu sa poos dara nekk fa kon wax dëgg yàlla suñu ñëwee fii ngir liñ leen di jox dañuy ñaan ñoom it mu yegg ci askan moom war a yegg parce que loolu mooy solo si te loolu moom la coordinateur santaane lii image yi muy jël sax su sañoon moom du ci feeñ waaye ñun ñoo ko forcé na ko il faut da ngay ñëw nga foto parce que moom lu mu def lu mu rëy rëy wan na ko ginnaaw yéemul dara te loolu jafe na bu ko neexoon mu ñëw ne faax fii caméra yi waru mais pare na ci mu ci yeneen tey nun lay yendoo suba nun lay yendoo pour jàppale jaam yàlla yi loolu nag dañ ciy tàllal kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci département Koungheul yëpp ñu ñaanal ko ñaanal ñu mel ni moom taxawaay bii ñu am ci département Koungheul bi yàlla bu mu neen donc ñu ngi liggéeyal président de la république ñun mouvement de soutien lañu ñu su ñu sañoon tey président de la république day am deuxième quinquennat waaye ñun ak ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi ay militants yu nekk ci au niveau communal suñu xelaat ak suñu yaakaar ak suñu nopp yëpp ñu ngi ko jox coordonnateur Moussa Baba Khody Dieng fu mu ñu xooloo foofu la ñuy xool fu mu ñu awloo foofu la ñuy aw donc nag bu ñu paree dañ leen sant gërëm leen parce que bu doonut leen it yéen jàmbaar ngeen xibaaru Bambouk Firi Infos ñoo ngi leen di sant di leen gërëm parce que département ngeen lu bëri lu fi soppeeku yena ko sopp njariñ li fi am lu beure beure beure bëri yena tax moy am parce que tay li kuku gis so mënul fukki da nga jëm ñaar ba ñatt te lolu yalla ak yeen la mun nga joxe lu jeex jeex te kenn du ko yek mais yek bi dafa am solo parce que dina tax lu bax mo mata roy te senegal gi lu bax rek la xam ñi ngi ñaan réew mi nak del ci fi ñu ngi ñaan ñi julli julli bu sedd goy yàlla yàlla def ci poos yi dara loo xam ne njaboot gi du ñu ñëwetu njaboot gi danañu bég it wax dëgg yàlla ak yonente bi loolu yëpp njëriñ loolu yëpp del si si coordinateur mi nga xam ne tey moo waral bés bi ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom donc ñun loolu moo si suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa maa ngi nuyu département de Koungheul yëpp di jiital ci nuyoo bi muy coordinateur monsieur Babacar Dieng di sant ñi nga xam ne ñëpp teew nañ fi da rafetlu yi tamit lii mu def fi te wax na lii du fi guleet dogg da ko fi def ren rek yàgg nañ ko fee teewe yàgg nañ ko fee sóodoo ak leneen ak yeneen yuñ mënta wax kon dañ koy rafetlu bu baax de wax na li fi indi nii tey njëriñ la si ñun jigéen ñi mais njëriñ la itam suñuy jëkkër ndax kenn ku ci nekk lii boo boo ci amee bu la eggul mën ngaa eggali sa bopp kon dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax ndax lu toll ci deux cent pompiteer ak deux cent sac soble loolu yombut kon boo amee ku la ko defal liñ mën a def rek mooy sant ko gërëm ko ñun jigéen ñi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi nekk coordinateur euh, ci communes yi sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah